Heavyweights.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 patalaw xale bu jigéen bi nee ñu maamam moo ko yónni woon ca marché ba ngir mu doxal ko ay course gannaaw course yooyu nag xale bu jigéen bi bi mu paree génn di ñibbi naka noonu la ko benn borom moto jakarta dal di ne ko ay ca yéegal ma yóbbaale la <laughs> ci koo xamul day wóor bi loolu nag nee ñu xale bi hésité na waaye nag ca mujjantal ga mu dal di yéeg moto bi <laughs> def nga musiba ndekete yoo moto boobu mu yéeg ab ponkalum saay-saay la ci la waa ji riir daal di jëm ak moom ci forêt bi daw ak moom di daw moom waaye ma ne ko nag doo yuuxu wàllu yóbbu ko ba ci ab béréb bu isolé wu dal di siif xale bi caxat-caxatee ko bi amee nag ci la ko fa sa waay ne ñukku dal di këddaat motoom dellu waaye nag am na ñu ne mbir mi am na lu ci luus de am na lees waxul lu nekk ci biir ndax kat yenn saa yi xale yi jigéen yi dañuy am fitu def sen njombe ba noppi dal di jël viol def ko alibi <laughs> ma ne ko bari na ci nag de waaye nag ak lu mën a xew moom xale bu 17 alalu procureur la te alalu procureur moom ku ko laal faaw procureur am ca yoon moo tax fi mu nekk ni njort ne moo def yëf yi mër la def daw yoonang koy wër <laughs> ma ne ko doo rëcc de ak sama gaayu xarañ xale bu bi nag moom ñu ngi ko yóbbu ci ab centre professionnel de santé ngir caytu ko moo tax maa ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Louga romb na doy waar ab waay daal lañ ne moo ab këram dal di ko jox ay jigéen ñuy jaay seen bopp ñu fay doxal seen business ay waay mim réew moo tax waaja teg nañ ko loxo ba def ko mandat de dépôt di ko toppee li tubaab naan proxénétisme waa ji nag gannaaw tuuma yooyu lank na ba tëdd ci naaj bi ne tuuma yi ñuy teg ci kawam teguwul moom daal dafa am ñu rof ab complot ngir bëgg a yàq jaram yàq réputation waaye nag li tax ba waa ji kenn mënu koo setal mooy kër googu ay weeri weer ngi nii ay nit ñu ngi koy signaler ba police yi di ko topp di ko surveiller ba lu toll ci weer la ñuy doog a def action dal di def desant ci biir kër gi séparé wu par groupe di fouiller sambre par chambre waaye nag li ñu fa gis jéggi na dayo de ndax am na chambre bu ñu ubbi fekk fa ab waay ak benn jigéen buy jaay boppam ñu ne dung ne ca <laughs> ma ne ko yéen a yér de waaja ne mi ngi am ñaar fukki at ak benn ku jigéen ka am ñeen fukki at fekk nañ fa tamit benn client ak benn jigéen buy jaay boppam yu waxaale woon ba juboo bay waaj a nekk action hmm. ma ne ko yéene yéer de te nag li gën a doy waar tarif francs la woon jigéen ñi fa nekkoon nag te ñu teg leen loxo gannaaw bi ñu leen lankete ñoom nee nañu li ñuy def yépp ci yoon la ñu ko teg defuñu prostitution clandestine ndax dañoo am seeni carte nekk ci seeni règle <laughs> ma ni leen lii rek moo um réew ay jigéen yi ñuy jox carte ñuy jaay seen bopp ñiy xeex violence faite aux femmes <laughs> war nañoo dimbali suñu jigéen benn guddi ñaata góor boobu xeetu violence <laughs> réew mi umu mu doonoon seen xibaaru bës dégg daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës